te yaaya xale bi mu doon séentu ci moom gisu ko bam na ko dangay may sama doom baatam xale bu jigéen bi nag nee na ko sama jëkkër laa bëgg te muudu muudu bi ñëw na ci kër gi di laaj soxnaam yaay ji na ko fii amoo fi soxna te nanga génn sama kër problème yi bëri na si nag torop ndax man bëgg naa sama jëkkër sama jëkkër bëgg na ma sama yaay daan ne naa jógee ci sëy bi ndax waa ji mënumaa yor ndax nee na amut mënumaa yor ndax waa ji dafa dem ñëw lam am mu néew mu bëri jox na ma ko jël na ko daal léegi sama jëkkër woo ko ne ko dama damaa soxla sama jabar mu ne loolu mënul nekk Après-semaine woo ko ne ko bu sama kër sama kër sa tànk mu fa duggatul da ngaa liggéey sama jëk sama jëkkër liggéey sama doom ba loo wax rek ñu ne waaw di nga sa tànk yi gis nga bis boo tagatee sama kër di nga la yóbbu fu ma xam fu ma xam ben doonee benn sama bi dem sama jëkkër woo sama yaay wax ko ne ko dama bëgg ànd ak sama jabar dem Dakar ndax sigam yow yaa sama kër kenn du doo fu dugg te man tamit sama soxna la am ñu takkal ma ko ci farata ak sunna léegi nag dama bëgg ànd ak sama sama jabar dem Dakar mu ne ko loolu mënul nekk wax ay waxam man na fi mu bi dafa tëju jaxasoo xaw ma bi lan laa war a def ñoom solution laay laaj. lan moo tax sa yaay bëgg nga jóge ci sëy bi. dafa mel ne dafa ne pour mu jógee ci sëy bi fi ne dafa dem ba xeeb waa ji ndax nee na waa ji amul dara nee na man naa jógee ci sëy bi waa ji mënumaa yor su ma mënee yor ak su ma mënta yor yëpp man maa bëgg sama jëkkër dama bàyyi sama jëkkër tamit bëgg naa sama jëkkër mel bëgg naa ko am am rek xëy rek sotti yàlla rek moo xam après ay programme am la koy wiire est-ce que yow pare nga pour jóge ci sëy bi gise bi moom xanaa mu jigee ca yàlla suñu borom waaye feeg tasewu ci yàlla suñu borom gëm naa ne man mën nees mënu ci dara sëy bi nag mu ne naa si mës sa jugee si sëy ba dee ba que jamono jii ñu yaa ngi giseeg sa jëkkër suma jëkkër fi ma sama jëkkër def ma lu ma metti waxuma lu ma metti problème bi yëpp ci sama yaay la sama yaay la dëgg la moo ma tette dit ma nekk xale li nekk ci man yëpp moo ko def waaye tam gis naa ku ma bëgg mu ànd ci ak man ci commencement ba mu ne waaw ne waaw bañ may ma ba pare waaji ñibbisi ñibbisi mu programme mu xeeb waaji ak la mu néew ko na bàyyi waaji na man waaji laa bëgg est-ce que ca début ba sa yaay àndoon na ci sëy bi àndoon na si kay ndax man ci kay àndoon na ci ci commencement ba ba egsi ba fii foofu sama yaay ne ko damaa bëgg a jël sama a fanaan sama yaay ne ko loolu mënu nekk li ma ko jàppee mooy sama yaay moo baare lépp pour du woon moom la ba léegi sama jëkkër jël na waa léegi yow loo xam ci parents yi jamono ji ñu toll. waaw suñ parents daal ñoo ñu war a jàppale si suñ sëy defe naa moo gën après ñu xool suñ situation jëkkër mënul nekk mu ne muy nañ ci génn affaire yooyu ndax alalu àdduna ndax man ni ma ko jàppee mooy alalu àdduna la la daal ndax sama jëkkër su amoon nañ gaañ kon defe naa ne kon mère bi duna ma jógee ci sëy bi tasal sëy bi.